bu yàggee kenn naa ko yàggal parce que bal la 4 minutes. 3 minutes bu yàggee kenn naa ko yàggal. bu yàggee. kenn naa ko yàggal kenn na ko yàggal waaw. kii reculé. waaw te ñoom ñaar ñëpp kenn ne du ñu reculé. waaw bu ñu tampon mu jeex. mu jeex kon combat bi mën nañ ci bañ a séntu yàgg. ma ne dañu ne bu yàggee parce que kii bu arbitre bi sifflé dina ko ni nii. wër ko mais est-ce que takkee dina ko fekk. est-ce que est-ce que Bombardier dana ko tal. dina ko tal ah lu booy bambara ngi waaw vas parce que man li ma gis laay wax. waaw. kii joxuma dërëm kii joxuma dërëm mais li ma gis entraîneur national la. Mhm. et <laughs> yàgg ci àdduna yore juróom-ñaari drapeau arène Sénégal. waaw non loolu kay xam naa. non ma tuuti rek. mais man xam naa dafa am loo xam ne bu ma ko waxee ñu bëri dañ koy weddi. Mhm. kii. Mhm. am na lu ko dal. kii am na lu ko dal. kii am na rapidité boo xam ne du la bàyyi nga nokki muy Balla Gaye kii nee na day dóor wuti ko est-ce que du jaar ci flanc yi dem yoonam. Hmm? moom Bombardier. jaar ci flanc yi. maanaam Balla Gaye mooy jaar ci flanc yi dem yoonam. mooy jaar ci flanc yi. waaw. Balla dafay nar a wut xeex te xeexut. ma ne. bu ñu xeexee bu ñuy xeexee. kii mënu ko ci xeex. ah. kii mënu ko ci xeex. Bombardier mënul Balla ci xeex. déedéet. Hmm. mais ñoom ñaar pourtant du ñu ay mbiru xeexaan. Ah. waaw mais mais mais attention. ñoom ñaar ñëpp du xeex la ñu. mais kenn ku nekk day moytu xeex ñu daanu la mhm. waaw mais bu dee xeex rek bala taxaw rek gën kii taxaw rek kii boo sàgg ne dinañ ko daan. moom mooy am problème. waaw mooy am problème mooy am problème. waaw Bombardier ah, xam nga lu tax may ma tuuti rek. waaw maa ngi lay déglu. parce que làmb da seet commencement bi mais bul xel njeexte bi làmb ji dafay loo xam ne kii bëri la mun. foo jaar mu jaar fa ca des kii. Pape Dia bul yàq débat bi s'il te plaît. bàyyi leen parce que sport la dañuy génne li nekk ci ñun. waaw amul waaw vas sama xarit nga waay <laughs> kii. Mhm. mun na bëri lool am na doole lool. Mhm. mais bëri des. Mhm. parce que yow kuy sa favori. sama favori mooy Balla. Balla kay. merci waaw. analyse. waaw kum neex nga def ko avant combat. Mhm. parce que archive yu bari ñu ngi fii ñu bëri lu ñu waxoon sa ay combat avant ak ba combat ba jàllee ni mu demee du benn du dëgg. Mhm. kon man analyse avant combat dérangé wu ma trop du ma si basé wu lu bëri ku nekk am nga droit analyse num la neexee. parce que mhm. doomu aadama nga. man pour man benn doomu aadama matul. ni nga xalaate rek ngay waxee. kon man defe naa. favori bi ñu ko jox sax man moom si gën a neex. du question favori mais gis nga analyse lu nit ki xam ci nit ki lay wax chaque jour ma dégg nit bu ñu waxee ci benn nit léeg-léeg ñeent ñi dañuy siisu ma lay dégg sa mag sa manager nee la bul ci tontu no da nga cee war a tontu ba sax ma tax. déglu ma ah kële déglu ma fii ma wax yow xam nga gis nga nit sama manager bàyyi ko mu toog fi mu toog. non dama bëgg nga déglu ma gis nga nit. waaw ko bàyyi mu toog fi mu toog mais dama lay xamal lenn. Louai gis nit mom lay wax. wa kan mo téré dama ni kan mo téré nit mu wax. kan non non non non kon laisse anyway anyway anyway bul japp ne nit dafa gis lo xamante wax la pour faral la. Eh, bala am nga habitude am nga habitude ni une minute deux secondes ki ki ko bu taxawé une minute bu yalla bu deux minutes bu nexé yalla